stade Demba Diop bu takku moo fa ci match bu mujj nag bu Jules matcham bu mujj ci àddina bi football na ko démb ca stade Demba la woon Jules François Bocandé xam ni ku bëggoon gañe la gañewaat na. ndaxte Sénégal yëpp dañu boole seen bopp mel na ku nekk benn nit ci stade bi nga xam ni feesoon na lool. pour delloo njukkal tàggu tamit ki nga xam ni nekkoon na fi attaquant gaynde football yu Sénégal yi njabootam ak ñi nga xam ni ñoom la daan footballal ñoom it desuñu woon gannaaw. ñoom Séga Sakho Roger Mendy Joseph Koto Boubacar Sarr Locotte Amadou Diop Boy Bandi wala it Cheikh ñoom ñëpp ña nga woon ca kanam ñoom sax ñoom ñoo gàddu woon li nga xam ni moom mooy kees bi defoon néew seen xarit Jules François Bocandé xol yi nag. tooyoon trop ay seede yu dugg ci xol lool trop ñu tànn ci bu Abdoulaye Diaw ak Khalilou Fadiga. J'étais là-bas ce jour-là, je me souviens comme si c'était hier. Quand je suis entré, j'ai levé les yeux sur cet endroit pour dire l'équipe du Sénégal est ainsi composée. Dans les luttes, il y a Chersey. En défense, Pape droite. À gauche, Mamadou Tao. Sur le front de défense, Racine Kane et Roger Mendy. Au milieu, Amadou Diop, et Cheikh Tidiane Fall. En attaque, vous avez à droite Joseph Koto, à gauche Tchernoyou. Les avançantes sont Oumar Gaysen et Jules François Bertrand Bocandé. Vous savez, d'abord, on tient à présenter nos condoléances à la famille. Merci. Euh, difficile de contenir euh, son émotion, sa tristesse, euh, comme ah, euh, ah. Fadiga. Nous tenons à remercier d'abord toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui ici. On sait que si tout le Sénégal aurait pu être présent aujourd'hui, on est, on certain que tout le monde serait présent aujourd'hui. pour ndar kàpp bi nag ci baatam président de la république di Macky Sall ci la yëkkati ay kàddu réewu Sénégal yépp pour wane ni Jules François Bocandé jóge na waaye du génn mukk suñu xol ak suñu xel ndaxte moom mi lee jóge fii ci atum juróom fukkeer ak ñett lu nekk defal na ko réewam